ます。 tey nag euh, seen sorti bu njëkk ñu ngi koy ñu ngi ko def fii ci Touba fekk si fekk fekk suñu fi ki nga xam ne nag moo muy président Daouda Sarr euh, mu fekk si naataangoom Sayar Seck bi nga xam ne moo ko toogal Touba ak membre yi nekk Touba am ñu bari ñoo xam ne ku ci nekk jóge nga ci 14 régions yi ci Sénégal yëpp ñëw ñoo ñëpp ngi ñu am mbég ak kontaante bu baax di fi agsi def si visite boo xam ne nii ñu ngi fi fekk suñu mbokk yi euh, ñu dalal ñu ngir wane ne li ñuy xeex ak li dox. Euh, ñun ñëpp ñoo ko bokk. Euh, fi nga xam ni fa la tabax bàyyi di bitim réew euh, ñu bëgg lépp loo xam ne am na foofa ci wàllu façon liggéey bu ne ni ko àdduna laajee ni ko jamono laajee foofu yëpp ñu àgg fa bépp liggéey boo xam ne nii concernant batiment rek la dañu bëgg ouvrier yi nekk Sénégal. Euh, man lépp liggéey boo xam ne génn na wala mu jugati liggéey boobu ñu mën ko liggéey ndaxte compétent bi am na fi ñu ko war a def am na fi lan moo des mooy ñu fédéré wu àndandoo nekk benn di xàccandoo di dóorandoo loolu rek moo indi suñu dajee fii. mu ñëwee ñu gis na sànc bi moo nekk sànc bu gën a mag ci région de bon li waral suñu dox dox jataay mooy dañoo gis ne ouvrier bâtiment yi dañoo nekk ci ay jafe-jafe jafe-jafe nekk ay ndaw ñu bëgg ko saafara. saaf jafe-jafe maanaam mooy euh, ouvrier bi day liggéey te du am ak ak yeleefam du gis boppam ci métier mi da ngay gis ku liggéey ci batiment ba màgget te du am ci batiment bi dara tamit te gis naa ne beneen jafe-jafe bi mooy bu njëkk maçon moo daal jógee ci bâtiment ouvrier moo daal jógee ci bâtiment bi daanu mais léegi batiment yi ñooy daanu ci kaw ouvrier yi léegi nag ñu bëgg a xeex jafe-jafe yi parce que ñun euh, ñun ñun ñoo nekk ci biir ñoo ci am jafe-jafe bon ñu ne woon nag nañ def fédération ñu nañ ànd ñu nooroo dekk dekk benn léegi nag xeex boobu ñu koy ñu ngi koy xeex ñu ngi ciy woo ñëpp ñu boole suñ boo doole doole suñ bopp moo waral suñ teewaay fii ci tey. li ñu koy xeexee mooy dañ ci ànd ak euh, école des chantiers BTP mooy euh, dañoo ànd ak koo xam ne nii tamit moo ñuy forme soxna si dafa yor école des chantiers BTP dañuy am ay diplôme te ciy joxe lépp. xam-xam lañ jital ba paré dogo mëna xex a légui susun bir, ñun ci suñ biir képp ko xamni ñi ñu ak yow ta amo xam-xam amo compétence dañ lay euh, yobbu ci école bobu nga jang ba mëna am euh, technique wala nga am xam-xam bo xamni ni bo duggé ci si bâtiment do am jafe-jafe. comme niko ki waxé légui bari na ci ño xamanteni ci compétence yi dess na bu baaxa baax ak yu baree baree bari yo xamanteni ci mënu mënuñu ko wax li tax nak ñu ne nanu mobiliser wu and nek ben, bayu ñu ben raison ci Sénégal modi di bu ba noppi dem sàkku jiwaat utiwaat beneen xam-xam boo xam ne dañ koy renforcer ci capacité yi nu yoroon. ouvrier yi nga xam ne nii amuñ qualification bu pare di engagé ay batiment loolu loo tax la ñuy xeex ñun dañu bëgg képp koo xam ne nii euh, yaa ngi engagé batiment da ngay compétence da ngay am expérience xam normes yi nor dosage yi respecté yëpp boo ko defee batiment yi duñ am ay jafe-jafe moo tax ñu war a nekk benn. ndaw yi nekk Touba déjà dañoo am benn échelle d'emploi échelle d'emploi mooy. bo ñëwé ci biir chantier bi ñëpp am importance ki nek ci suuf moy apprenti bi apprenti bi ki nga day ah, ñu indi si woon bi indi ma bi liggéeyam dañ koy di un manœuvre bu manœuvre ñu ko un ouvrier qualifié parce que formation boobu dans le temps lañ ko daan def nga xam 10 ans. nekk ci ñu naan la indil ndox indil nangam nee na loolu day jeex boo toogee maximum 3 ans war ngaa mën a mën sa métier pour musul def sax machine parce que ñu ngi ci biir métier bi mais chaque jour nga dégg ay jafe-jafe te ouvrier yi amul fu ñu ko saafara léegi nag moo tax ñu boole suñu bopp euh, nekk benn di fas yéene neen képp ouvrier boo xam ne mi ngi ci liggéey ci métier bi. donc dafa am problème yu bari yoo xam ne dafa am ci réew mi te lu ko indi bâtiment ouvrier yaa ngi ci du maçon rek de. li y bâtiment du maçon rek maçon yaa ci nag ndax liggéey boo xam ci ay compétences les différents types de fer ah munoo def dosage des béton de def coffrage bu normal yooyu yëpp indi ay problème ci biir liggéey ñeneen ñoo ay plombier lañu tamit bâtiment di di ont ba nga maçon boo defal fekk plombier defal ko ba mu baax muy commencé di seen ndox moom di dem ba ragalaat ba xëy def dégâts gis ngeen tam problème ci démolition koo xam dafa ñëw ne tojal dem ma sama kër gi damay defar beneen kër dafa am une démolition partielle am démolition totale démolition partielle nag moo gën a délicate ngay ñëw di toj dafa am étude boo war a def ah étude environnementale nga xool ñu ne ci gox bi yëpp ni ñu tax a dëkkeek yow ak lépp ba xam dooleen lool

yi nga xam ne ñoo koy am na ñoo xam duñu xam wala yenn saa tab bi da leen di sonal comme naa ñu dee teggi teg fee te pourtant bu benn mool jóge woon fee ñëw dalu ci dal ci kenn bu ñëwee ci casque bi lay dal bu ñëwee dal ci sa tànk ci dal société de sécurité bi lay dal donc yooyu yëpp da ay normes yoo xam ne xale yi ñoo ngi koy jàng di góorgóorlu di am jom ndax du caagin ni da ngay diplômé rek doo ko mën a xam bâtiment waaye tamit da ngay am ay services yoo xam ne dañ dañuy complément pour a ñëw mën a complété ndax kii taxaw sama ginnaaw rek Xaadim Saña man maay conducteur bi ci bâtiment ba nga gis bâtiment témoin mu moko liggéey mu nga commencé depuis le mois de mars bi ci sama côté ndey jox tamit mu ko liggéey commencé depuis mois mois de avril te jusqu'à présent doon na loo xamante ñu tamit ku ñu yombal suñu liggéey la ndax buñu ñëwé tamit visé plan yi ñu wokk li ko liggéeyloo di chiffre norme yi mom tamit mom en tant que chef de chantier dina top norme yi di ko liggéey ci xamanteni qualité bi nga xam ne ñun moom lañ soxla ba bu sa yu contrôler ñëwé tout temps dañu ñëw gis kat yenn jafé jafé yi ci am yenn fichier noko formuler man na sax ci bâtiment yi mënu ci bari té lool dara war lako ko maanaam xam-xam boo xamante ni mu ngi ci moom ndax danaan loo tarbiwul mënoo nekk sëriñam loolu moom da koo dal ndax ñu tamit buñ tarbiyoo ci wàllum nasaraan si ñoom tamit ñu ngi tarbiyoo ci bu liggéey ci nasaraan si ñu fekk si leen ci terrain bi ñu di liggéey te loolu yaakaar naa doon loo xam ne lu ñu yelef la ndax tey ji sax da ngeen ñëwee fekk ngeen uh, suñu ingénieur bi bari nekk visite ndax tey conducteurs yi ak ingénieur dañoo ñëwoon tey def benn visite moo tax ñu nekk réunion waaye kon accueil bi dina gën a mën a yaatu ak yi ñoo fi nekk ak suñu benn ingénieur madame Mbacké le chef de chantier moy ki nga xamné ne bu ñëwé egg ci biir chantier bi mom dina am compétence yo xam dina mëna surveiller maçon bi mais dina mëna surveiller képp kuy intervenant dans les autres corps d'état du bâtiment Ah. am ay techniciens supérieurs yooyu yëpp ngi ci biir école des chantiers ñoom nag dañoo gëm seen bopp parce que fi mu nekk nii nee naa leen ñun dañoo imposer woon une langue étrangère muy français ku ko mënu rek doo am diplôme avec école des chantiers loolu jeex na fi képp koo xam ne jàngoo te jóge ca daara ji ñëw ah gëmal sa bopp boo nekkee par exemple di jàng ci atelier yi wala nga nekk ci chance yi dinañ la accompagner ah ñëwal adhéré ci fédération des travailleurs du bâtiment dinañ la accompagner ba nga am diplôme. rek gis nañ ci fii ñu ne Touba ay bâtiment yoo xamante ni daan na si ci jamono màggal gi te loolu dara waroo ko lu dul descente de Sarr bi duñ ci tenir en te loolu lépp nag bu ko dee def rek. te buñ ci duggal lu melni ñun ñi xamni ne ñun ñoo nekk ci bâtiment yi di ko liggéey bu yàggee danaan moom suñu compétence dafa des te ar ko loolu moom dakar naa amu ci da leen sant nag baax a baax a baax di leen gërëm ndax yaakaar naa ni lii rafet na te dañu ñaan tamit lépp gën ñu coo dooleel dooleel ñu ko ba li ñu bëgg ñun ñëpp ñu songandoo ko daanandoo ko ndax tamit suñu réussite mooy ñun lépp luñ fi liggéey ndax li ma naan jeune civil ak médecin ñoo yem ay vie la ñuy yor ay bakkan te yow mi liggéey loo xamante ni dañ koo liggéey ngir sa poste amaana tey ji bu ca jafe-jafe amee man ngaa lor ni bëree bëri kon yaakaar naa lépp looy liggéey war nga koo teg ci ci qualité ci hygiène ndax yaakaar naa ni pour nga liggéey moom il faut nga am xam-xam te xam-xam bi leen lu ñu dem jàngiwaat ko baax a baax tarbiwu liggéey bi ba am ci xam-xam boo xamante ni soxla nañ ko bu ñëwee si la terrain kan mën a jinne suñu xam-xam liggéey ko nga xam noonu lañ ko bëggee bañ koo liggéeyee ci par rapport ak xel dañoo dem bi ñu xoolee ne ouvrier yi bâtiment bari nañ trop te it néew nañ doole lool ñu ne nañ boole suñu ay doole pour mun a

nañ décentraliser yëf yi ñëw gi tey li ko waral mooy réunion décentralisée la wala rencontre décentralisée ñu ngi fekk ci suñu mbokk waa Touba yi ci bopp bi ñu teg fi comme coordonnateur CRSEC e ak ñi mu àndal bu ko defee bu ñëwee Touba rencontrer leen pour gën a mun a organiser secteur bi.